asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mercredi 6 mai 2020 ñoo ak yéen ci yëgle kaay yi. sunu làmb la ni xëy doore ko yëglekaay bi nag tey dafa xëy dalal ka nga xam ne nii moo di bombardier mu mel ni kii nag bombardier moom ay bomb daal xëy tey dóor ay misil yu doye waar daal la xëy tey fëgg ba mu saf sàpp te mu ko fëgg du kenn ku dul ci ñi nga xam ne ñoo di waa seen ba tey bombardier daal daa mel ni la mu fi waxoon ay weer ca ginnaaw wala ay fan ca ginnaaw xëy na feddi leeti ko nee na daal CNC bi li am ba des bombardier nee na la mu soxla fi mu nekk nii ay nit yu bees teq teq teq yu ñuy door a dajji ci paquet daal ne na ñooñu lañ soxla fi mu nekk nii ay nouveau visage daal daal la Bombardier jàpp ne ñoo war a ñëw léegi doxal li nga xam ne nii mooy mbir mi waaye tamit am na loo xam ne nii Bombardier nee na li am ba des daal nee na ci mbirum kuy jiite mbirum làmb ji ne na ay vote moom moo ci war a am waaye lu mel ni ki ni ab arrêté ministériel nee na ku ci mën a doon muy Matar wala keneen waruñu ñu koo jox déedéet nee na kay des ko war a ci ay carte ko choisir ko teg ko ca mu daal di doxal waaye nee na daal li am ba des moom du Matar ba fi mu nekk nii moo war a ñëw sax même bu fi Alioune Sarr di leen tànnal koo xam ne mooy jiite loolu mooy li nga xam ne nii mooy waxi Bombardier nee na tamit ki nga xam ne moo di Alioune Sarr ba tey Bombardier wax maanaam daal déglu ñi muy jiite nee na moom du ko def nee daal fi mu nekk nii moom du déglu kenn loolu mooy waxi ka nga xam ne moo di Bombardier nee na sama combat ak Rocky Balboa nee na li tax Alioune Sarr refusé ko nee fan la ko teg nee na ba mu koy tere tegu ko fenn foo xam ne fu tega ci aw yoon la Bombardier mooy wax ba tey du sama ay wax mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb keneen koo xam ne wan nañ ñu ko sunu làmb muy Luc Nicolaï moom nag combat ba nga xam ne ni daal moom la tëgg mu dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé yëglikaay ni nag lii di coronavirus bi moom covid 19 bi sauvé na ko ndax nag combat combat ba moom lees ci mën a xam moom des na ko reporter par force ba déwén wala ba yeneen weer boog ndax la ko waral mooy corona ba yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne ni moom tëdd na lu yàgg te corona tëralu ko mooy Ibou Ndafa la ko tëraloon moo na di wax fi nga xam ne nii moo di sunu làmb nee na am na juróom-ñaari yoo xam ne ni day tëdd na ko te yemu ca na sept ans yooyu mu toog yëpp nee na ay beeke lay doxe muy lu méttee métti loo xam ne daal Ibou Ndafa dund na ko waaye nag nee na taxu kon mu ñànki wala leneen nee na dafa mas a ànd boromam gëm ne daal lépp daal yàlla la mu jël daal mbir ya delloo ko sunu borom loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw tey wax nu ko ñeneen ñoo xam ne nii moom daa mel ni des na xaw a fàtte muy Modou Awa tin ak Saalum Saalum ak Bougane cadre Ikra Salem ya daal yëglikaay ba xëy na tey ñëw ci ñoom moom sunu làmb keneen koo xam ne nii moom wala yeneen xale yoo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ka ca njëkk mooy Pape Thiam numéro un yëglikaay bi nee na nag bu leen ko jaawale ak Pape Thiam deux kii mooy Pape Thiam un Pape Thiam un ña mu bëgg a bëreel lay wax nee na ka ca njëkk moo di Thiély ba nekk plateau albarka kayre wala fourrière nee na ñii daal gu mu ci am dana jël defante ak yow ba mu saf saf keneen koo xam ne nii moom defante na ba mu saf ba daan mooy wës jàmbaar bu yaraa wës nag moom yëglekaay bi ñëw na ci moom nee xale ba mu taxawloo nag moo jara wax muy koñaa numéro 2 ma nekkoon ci bu neex moom la wës jàmbaar stoppé ne ko taxawal may ma ma jàll loolu la yëglekaay bi di sunu làmb xëy tey wax nu ko leneen loo xam ne yëglekaay bi di sunu làmb ñëw na ci ak nun mooy ki nga xam ne moo di bàcc seeraas ak feebar ba nga xam ne moo ko tëral mu mel ni kii nag làmb ji daal saa yu lu mel noon amee des na ci taxaw xëy wax ñu ne ñoom taxaw nañ ca di ko soutenir mooy waa groupe baax groupe ba nga xam ne daal non violence la ñu nekk ci làmb ji di ay supporters te président ba di Massamba Dieye daa mel ni ki daal yëglikaay bi wala boog sunu làmb xamal nañu ne day li ambares ñoom ñu ngay soutenir Bathie Seras di ko ñaanal wér ak ña nga xam ne nii ñoo di ay mbokkam sunu làmb xëy ñëw wax nu ko dañ fay toxo dem la tribune la tribune moom que mu andi mooy premier wala boog troisième tigre de face ba di Gris Bordeaux ak kan borom takk ci rib la séant di bawal mbooloo muy tafaatin mu mel la muy wax le na la wala la mu xam le daal ne na corona bi su jeexee est-ce que loolu war ta nekk plan boo xam ne nii daal après corona lañ koy tudde maanaam giri ak tafaatin ñu boole leen ñu defante la tribune moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni kii noonu wala mu samp boobu laaj mu jóge fa man tamit dellu record record moom bon fa demee kan fay fekk mooy Mouhamed Ndaw Tyson yëglikaay bi ñëw na ci moom ak ni nga xam ne nii daal moom la révolutionnaire làmb ji yëglikaay bi ñëw ci moom jàppal esprit bul faale ba ak la mu théoriser andi muy loo xam ne révolutionné làmb ba ci mbër mi ni muy taxawee na muy soloo la muy faye ko comportement bi mu war a am yëglikaay bi ñëw na ci moom 95 ba tey ni mu bàyyee làmb mu mel ni ki ñaar fukki at def na ko ci carrière am maanaam daal 20 ans de carrière la def 95 ba 2015 tey seen la nga xam ne ni am na ko ci ay ndam yëglikaay bi ñëw na ci boo bëggee dégg-dégg daal nee na boo xoolee 17 combats ya nga xam ne ni am na ko wala boog tey seen la boo xoolee réussite ba 64 pour cent des na ko di 17 combats yooyu nag bëri na ci ay revanche yoo xam ne bëri na boo xoolee ñeenti revanche bëri na ko yëglikaay bi ñëw na tey wax nu ko ak ay mbër yoo xam ne bokkunu waaye am na ñoo xam ne tamit ci génération xawoon nañ koo jaaxal lool bokk na ci yax yi jób yi ki ni ak ka nga xam ne moo di Serigne Dia Bombardier waaye ba mu commencé daal 1995 jëkka daan ngay luum loolu la Mohamed Ndao Tyson def yemuñu ca yëglikaay bi ne nag mu continuer teg ca nga xam ne moo di Daouda Top 17 décembre 96 Cheikh Mbaba 30 juin 96 Aline Seye Sey 1 7 octobre 96 Mohamed Ali 7 mars 97 Tafa Gueye 6 juillet 97 Toubabou Dior 19 avril 98 Manga ki nga mooy la 4 juillet 99 tamit la ko daan daan ka nga xam ne moo di Mor Fadam 7 octobre 2001 daanaat Mor Fadam 7 juillet 2001 waaw loolu la yu kii Tyson def. Tafa Gueye mu daan ko le 30 mai 2004 dafa demu am nag ka ko ko a teg ay Serigne Dia Bombardier di la toll ba moo xëy ñëw wax na ko waaye ci ki nga xam ne nii moo di Yékini ak Bombardier waaye li am ba des daal 95 mu commencé ba 2001 moom boo xoolee def bu nga tege di dege la def ba yegg si dafa ne commencé yëglekaay bi ñëw ci moom ci palmarès bi ndam ya ngay lum la tay seen dëkk daal 31 juillet 1996 teg ca daaw la topp 17 décembre 96 Cheikh Mbamba 30 juin 96 Alioune Seye 1 7 octobre 96 Mohamed Ali 7 mars 97 Tafa Gueye 10 juillet 97 Touba Ndior 17 af 19 avril 98 Manga 2 4 juillet 99 Mor Fadam 7 octobre. 2000 bataille Mor Fadam 7 juillet 2001 Tafa Gueye bataille 30 mai 2004 dafa demoon nii la toll Bombardier ku njëkk a daal 25 décembre 2002 Bombardier ki nga xam ne mu di Yékini daanaat ko 1er janvier 2006 Bombardier daanaat ko 7 janvier 2007 Yékini daan ko 4 avril 2010 Balla Gaye 2 daan ko 31 juillet 2011 Gris Bordeaux daan ko 3 mai. 2015 mel ni ki nag ki nga xam ne mooy Tyson daal loolu la jot a def ci làmb ji ak na nga xam ne nag noonu la ko révolutionné andi ci lu bees tekk tekk tekk taxawaay boo xam ne bu doy doy waar record moo xëy moom waaye dañuy continuer ba ca nag lañ fa xëy dalal ci corps nag moom nee na mbëri maay seen imam moom tafaatin lay wax de waaye daal nee na li am ba des moom xam ne moom dana taxut mu sonal ko lool nee na bu yeewoo daal la muy def mooy tuuti café lay laal maanaam daal teg ci ay tàndaram nee na nag li ko waral mooy heure ba muy reer moo tax maanaam day guddee reer ay une heure jàpp deux heures du matin lay reer ñu ne ko léegi yow looy préféré mu ne loolu moom amul lu muy préféré madame mooy choisir lu ko madame wax loola daal wala plat bu mu bëgg ca la ñuy ànd ñoom ñaar def ko ba mu neex waaye nee na ceeb bu weex moom nee na neex na ko lool wala bu xonq ba moom dafa tin moo wax waa entraînement yi tam daa mel fi mu nekk ba wàcc nañ ko bu baax a baax la ko waral mooy li nga xam moo di koor gi ak ki nga moo di kufur fa bi waaye yàgg maar tafaatin la mu wax neex na nee na ma damay choisir moom du tànn dara lu ma dam wax ca lay ànd yàgg maar lii war naa tax nga takki jabar ndax bu ma dam waxee nga man caa ànd ndax biram mais defe naa du choisir palaa ndaa ngay choisir te man mi itam du ma choisir te na ngay choisir kon tafaatin du yow dong la ma dam di defal loolu asalaamaaleykum mbokk ñuy suivre ci Leewtoo TV Babacar ngeen àndaloon ci revue de l'arène bi waa kër ñu ngi lay maa ngi fay biram di nuyu internet Leewtoo TV yëpp di leen ziar di leen ñaan jàmm di ko sàrtu ci yoon fi mën si àdduna bi rek maa ngi di bëgg jërëjëf Babacar euh, ba léegi tey corona bi dafa mel ni <laughs> li ci am cas positif xaw naa bëri lool. waa aw xaw na bëri moom kay xaw lu sax xaw a bëri daa bëri parce que mille et quelques euh, yi ñu defal test boo xoolee cent et quelques am ci ah loolu tamit da nga parce que mille personnes bu ñu leen testé mille yu tegal yaa ngi dégg bu ñu ci génnee cent yaakaar naa ne loolu kii na li ci am solo daal mooy ñu ñaanat yàlla rek mi nga xam ne moom moo man tey dogal yàlla na ko fi yàlla jële ci lu yàggul dara barke weeru koor gi duna barke alxuraanu karim barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke mag ñu baax ñi ci réew mi parce que ñu tamit ay jullit lañu ñaan la lañu mën a def suñu borom ndax moo nu ko sant kon nañu koy ñaan mënuy may ñu koy sant mënuy dolli te li ñu koy ñaan bokk na ci suñu soxla y mooy coronavirus bi yàlla nañu ko fi jëleel ci barke nabil Mustafa barke mag ñu baax parce que yàlla amul lu ko të waaw amina ci topp Babacar ñuy ñaan rek tey mu moytu comme ay jullit lañ eh, ñu ñëw ci ci sunu làmb ñëw ñun ci waxtaan bu rëy yaatu diggante mag ki nga xam ne mooy Serigne Dia Bombardier waaw Bombardier tey xëyati wax comme ni ñu ko xamee ça parce que fan yi waxoon na ci mbirum CNG tey dafa fitliwaat la mu waxoon rek yaa ngi dégg xam euh, xamle woon na ne daal ñoom dañu war a dem ñu bees lañu soxla loolu la xëy waxaat ko maanaam moom daa jàpp na tey lu bees moo fi war a ñëwaat yaa ngi dégg maa ngi jéglu ci masque bi ah <laughs> euh, li ñu bees war a ñëwaat loolu la xëy wax yeneen tat yeneen nit yu bees waaw loolu nag actuellement dafa mel ni fi mu nekk nii bëri na ñu koy wax yaa ngi dégg ni dañu war a dem dañu war a dem euh, li ci am solo nag moom jàpp na ne moom combat ak Rocky Balboa la ko sensee annulé wala tax euh, ñu nekkul ne mbir moom teguñu ko ci aw yoon coow lu na fi Bombardier Rocky Balboa li am solo nag la ma waxoon démb laay waxaat tey rek biram euh, Alioune Sarr am na lu mu def ci làmb ak lu mënta xew waaye xëy na nag 26 ans yi li nit ñi dem ba yaakaar ne lii c'est trop ëpp na moo tax xëy na nit ñi di wax na dem na dem na dem waaye dem gi ak toog bi liñ ciy ñaan mooy lépp rek yàlla na nekk njëriñu làmb waaw yàlla na nekk njëriñu làmb encore une fois tamit euh, su ma sañoon ñun ñëpp ñu xam ne ñoo bokk Sénégal si ay dégg buñ ciy wax ñu wax ci de façon boo xam ne lu objectif lay doon mais bañ a nekk loo xam ne tamit entre Babacar lay doon ak bureau mel ni sans règlement de compte yaa ngi dégg loolu su ma sañoon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax yaa ngi dégg ku ci nekk rek parce que mbir la moo xam ne ëllëg ci ne li lay mujj rek moo tax na nañu rafet waaye nit ki tamit li la neexul waa li nga jàpp ne ni muy doxee war doxe ni am nga wax ko ne warul doxe nii mais loo xam ne lu objectif lay doon am na solo Babacar ñëw ci écrit HLM bi nga xam ne moom mu boot ñoom eh, Modou Awatine ñoom Saloum Saloum mu mel ni leen fàtte waaw ñoom day fi mu ne dañ leen xaw a fàtte parce que boo xoolee mbër yooyu gëj na ñoo bëri muy Saloum Saloum Modou Awa sax defe naa moo ci mujj a bëri yaa ngi dégg ay bugaan ñoom ñoo xaw nañoo gëj a bëre muy écrit boo xam ne nii daal ah tamit war nañ leen cee boole ndax mbir yooyu ay mbir yu mag lañ Saloum Saloum a ne fàttaliku diggante ak Balla gay de Iba Mar Diop mu daawatin tamit yaakaar naa ne diggante ak Baye Mandione Iba Mar Diop ca Gasson ba la amee woon kon ñoom ay mbir lañ yoo xam ne mark nañ seen empreinte ci làmb ji waaw waaw dëgg la Babacar ñëw ba léegi ci sunu làmb waxtaan nag euh, ki nga xam ne moom mooy euh, ancien champion bi di euh, Ibou Ndafa mu tëdd tëdd feebar bu yàgg ndeysaan doxee ay beekee juróom-ñaari at mu métti loolu pendant sept ans la wax ne ne mu ngi doxe beekee ñuy ñaan yàlla tamit yàlla gën ko delloo ci sagoom di wax ne àddina noonu la xam nga euh, moom nekk na koo xam ne ci làmb ak égri séréer ku ne xamoon na kan mooy Ibou Ndafa wane woon na boppam ci fullaam ci jom ci faydaam ba yàlla indi accident mu dal ko mu toog tamit jàpp ngorom jàpp ci yàlla ne ci boppam ak ay mbokkam mu mel ni kon àddina mu tëdd noonu euh, biram li may xam li may wax mooy que ne ñun ñëpp ku li nga sa bopp na nga sa morom loolu moo ñuy noppal ku nekk tamit ngay am njort bu rafet ci sa morom loolu dafa am solo yaa ngi dégg parce que lépp day jeex parce que moom mi amoon na ay temps nekkoon na ci duggundam nekk ci jeunesse sam di bëree ndax lu ko neex te gis nga tey yàlla te ñun ñëpp ku ci ne ëllëg ñu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp ñu mujj fu baax mais dinañ dem ba kattan bi ñuy wax amee nii di wax ci micro dañuy tëb loolu force day am bu guddee aw fan parce que ku ñaan yàlla gudd fan rek jàppal gudd fan moom bu amee xaw mu lu koy gunge. mais nag yàlla nañu yàlla mooy mujj rafet daal yàlla na ko yàlla jële moom itam ci lii mu ne ba delloo ko ci sagam bu baax a baax a baax amin moo ciy tegu ak mboolem mbër yi feebar ñi feebar yëpp ci Sénégal dinañ yàlla jële ci feebar boobu euh, sunu làmb ñëwagu ñun ci ki xam ne moom mooy Luc Nicolaï ci combat Modou Lo ak Ama Baldé mu mel ni combat bi daal euh, coronavirus moo sauvé Luc Nicolaï ba combat bi mujj doon am waaw parce que combat bi xalaatoon nañ ne ren bu saison bi continuer est-ce dina mën a am du mën a am coow li ci day am ak du am waaye nag daa mel ni wala ne ay waay jàmm waay kon ci ni ko yëglekaay yi waxee que ni corona bi dina tax ba combat bi kon dina sauver Luc Nicolaï kon combat bi na mënees na koo xaar saison ñu ngi ñaan yàlla nag rek euh, Luc moom daa nekk suñu nit nekk nit ku baax nekk nit waa làmb yépp ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu ne yàlla na fa génn ak jàmm barke yonent yàlla def tamit bi jeex ba lépp a amaat yoon daal waaw dëgg la Babacar dañuy dem rek ci tribune yégle kay tribune bi daal moom dafa waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy diggante Gris Bordeaux ak Tapha Tine. na après corona est-ce que duñ ñu indil plan boobu Gris Bordeaux Tapha Tine derby bi Medina la combat bu neex la te dégg naa Gris Bordeaux bi ci 2STV moo ak Modou Mbaye ak Eumeu Sène ak Boy Niang ak euh, Ama Baldé dañu waxtaan waxtaan wu neex ak Pape Sidi Fall moom Gris moom nee na ci làmb tey benn mbër la fi bàyyi muy Eumeu Sène kon yaakaar naa ne ku doon xalaat naan Gris ak Medina ndax duñ bëre kon defe naa wax jooja leer na maa ko déglu bi ndax dama leen suivre de très près ma ci profité di nuyu Modou Mbaye di ko wax ne liggéey bi rafet na trop mo daal li Pape mii bind ci la tribune combat boo xam ne après coronal ku ko tëgg am làmb neex Baye bu Tapha Tine lool waaye loo ci mënti dégg daal ñu leen di ñaanal ñoom ñaar corona bi daal na fi jógee ngir ñu mën cee dem waaye tam kii di Tyson ñoo ñun ci record yéeglekaay ñu waxtaan ak moom ci lu rëy maanaam sax ci cursus carrière am fi fu mu jaar yëpp. waaw Tyson 95 diggante ak ngay lum la njëkkee ba 2015 diggante ma Gris Bordeaux mu jeexal muy 20 ans de yoo xam ne def na ko yéeglekaay bi nag ñëw na ci lu yaatoo yaat ci gëstu Abou Ndour mel ni kon daal tey ku ubbi record di nga fa fekk lu carrière Tyson yëpp moom la fa tënk tegal ñu ko fa Tyson nag li ñu mën a wax ci moom mooy dafa am na muy mel ci jamono bu ñëw Tyson bu ñëwee si làmb am na lu mu indi personnalité indi na ko indi na lu lu bees ci mbër ni mu war a comporté ko jàppoon na ni mbër war na mën a dawal 4 war na mën a tabax immeuble war na mën a sol costume di voyage dem États-Unis fu nekk di ñëw Tyson mooy incarné loolu yaa ngi dégg yaakaar naa kon li ñu ne dafa révolution dafa révolutionné làmb loolu juumuñu ci parce que loolu moo am yaakaar naa nag te itam nekk nit boo xam ne nii bariwul loo koy dégg muy wax non moom bëriwul lu muy wax mu ngi toog jàpp njàmburam nekk ci li mu war a ne nekk na koo xam ne daal dama naan ci làmb man Babacar li may wax man la engagé ku ko estimé la Mohamed Ndao Tyson par rapport ak comportement bi mu amee ci làmb ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mu nekk mbir moo xam ne daal vraiment ni ko yëglikaay bi topp tey loo am solo la daal ndeysaan am na solo ba ci eh, esprit boobu bul faale bi philosophie bu bu bu am am am solo boobu parce que bul faale boo seetloo dafa mel ni loolu la xaw a doxal ci làmb bi waaw bien non bul faale parce ko bul faale ci kàddu maanaam euh, Youssou Ndour na ko ca omat mbaam yaa ngi dégg boo defee ñu ne lee nga def lee ñu ne nga def lee ñu ne lële kon li lay dimbali mooy a faale tey dem waaye nag bul faale ça ne veut pas dire ne da ngay def loola neex déedéet maanaam da ngay a ci sa aw yoon ak ñi nga jàpp ne la ciy war a teg nga dem nag li ci des nag Babacar di ko wax wala yàgg maar nan biram lii biram laa non bu biram bàyyi loolu xel na dem rek wala bu koy bàyyi xel tamit na doon lu koy may doole yaa ngi dégg bu mu doon loo xam ne nii da koy kale pour mu dem fi mu bëgg dem dëgg la Babacar loolu moom am na solo lool maa ngi ñu koy nuyu bu baax a baax waaye dañuy mujjee ci ki nga xam ne moom mooy tafaatin tafa daal naa ne mooy imaamu mbër yi loolu dala wax tafaatin wax nga moom daa feex maa ngi koy nuyu di ko ziar nee na daal moom mooy imaamu gaay ci koor gi yaa ngi dégg wax na lu yaatoo yaatu te ci record ah loolu nag war a firnde parce que dama xam naa ne alxuraan moom jàng ko ndax fa mu dëkk ca reefan di njanjaar euh, ca côté juma Touba reefan ba defe naa foofu ku fa dëkk ak ñuy nuyu oustaz Faye ma nga xam ne moo fa nekk ak kilifa yi sant jon te yor wàllu diine ja foofa di nuyu waa reefan yëpp yaakaar naa ku fa yaroo war nga mën a jàng alxuraan kon defe naa ne euh, mu jàng alxuraan ba taxaw ne tey war na mën a ji moo imaam mbër yi waaw mais dama koy laaj ndax Gris Bordeaux futur adversaire am dina ko nangu ndax Gris defe naa def na daara te bëri na ci mbër yi ñoo xam ne def nañu daara bu ñu ko doon lim duñ fi jógee waaye moom daal def na boppam élimaan gi xam naa daal ni ñu tànnee imaam daal Babacar bu ñu ko naree tànnee ci mbër yi man dinaa xaw a doy <laughs> man nag bëgg naa fekk naa ñuy joxe ay don ma bëgg naa benn suuf fekk leen ñuy julli julli ñoom mbër yi sàppe ñu xool kuy jiite waaw ñëw na tamit ci kanam moom du choisir waaw ci côté togg bi ah nee na ma damay choisir ah, ah, loolu nag boo gën a war waaw waaw non ma dama war a choisir góor biram joxe dépassé ko war hmm. boo joxee dépasse borom kër du ne ci biir kër naan nañ toog li nañ toog laa déedéet parce que ñu ne ci kër gi dañoo bëri yow joxeel dépense rek te bàyyi ma tam mbir mu nekk kii ka ko gérer kon taxaa lu mu wax tamit lu rafet la dafa mel ni daal serviteurs yi xool seen bopp kër ah war nañu wuti soxna de waaw ku mel ne yàgg ñu ngi ko ñaanal yàlla di ko wax ne taalibe Serigne Saliou bu toll ni moom wala taalibe Cheikh Béthio mu Serigne Saliou waroon naa fekk nga denc soxna bu yàgg soxna kenn du ko waaj yàgg amul ngaañ jarul calculer boo ko mathématiquer rek du du du du sotti waaw bu ma defee lii non non soxna doxut ci yooyu soxna ak jaamu yàlla demal yàlla na la yàlla may soxna su baax. <laughs> Amir Babacar dañuy mujjee rek waa groupe baax foo xam ne fa nga bokk fa la bokk yaa ma fa dalal Massamba Dieye ñu def lu rëy maanaam dañu ànd ak Bathie Seras ci feebaram bi. jàppale ko xëy na même buñ ko jàppalewul ci alal sax mais jàppale nañ ko ci xel xalaat ak soutenir ko ci seen kattan ak seen lépp groupe baax nag comme ni ñu ko xamee yaakaar naa ne su ma jumul 2010 lañ ko taxawal. ba tey muy dox yaa ngi dégg kon yaakaar naa ne eh, groupe la boo xam ne dafa nekk ci lam composé ñoo xam ne ku ñuy bokk sa morom mbër mais ñu ànd bokk nday bokk baay di social ci seen biir di social ci waa làmb kenn rek ay masque defar nañ ko pour làmb kon loolu moo lay wan ne tey Bathie Seras bu tëddee ñu di ko soutenir noonu defe naa loolu du ñu mën a def loolu nuyu président bi Massamba Gueye ak ñi nga xam ne ni groupe baax lañ bokk yépp yaa ngi dégg ku mel ni Laat Sène Sora Malick Mamadou Diouf Laay bu Faas ak yow biram ak ña bokk ñi jigéen ñi duñu leen fàtte yaa ngi dégg parce que ñoom xadi maa ngi koy nii di ko ziar madame Ndaw di nuyu Ndaak madame Ñing ñoo ñëpp ay ngóoni ay maram madame Ndiaye ñoo ñëpp mais du ma mention spéciale mention spéciale tamit à xaadim xaadim Balla Gaye wala ma ne xaadim ja wala xaadim bu groupe baax parce que moom itam taxawaayam si group bi am na solo trop muy sastu yoo xam ne daal rafet na daal jërëñu jërëjëf Babacar lu jàmm daal jàmm ko gën boobee muy seen slogan muy sunu slogan ñu leen di nuyu ñoom ñëpp fàttewuñ ci kenn waaye noonu lañu tàggatoo mbokk yi di nuyu mbool mu ñuy suivre ci Leewtoo TV waaye di nuyu baax waa Ngunjaan nag tey Joor Saameel waa Cangaay waa Mbour waa Jàkk waa Ñaax ak mboolem yi wër Ngunjaan waa mus naax badu la phénomène kenn du ko fàtte waaye Ibra Saar la ko yàlla pangool ñu ngi nuyu Umar Thiaw waaye tam nuyu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, fans yi euh, grand lay ñu ngi koy nuyu baax baax lay Njaay bu ordinateur ñoom nguy jon ñëpp daal ñu kenn ñoom siga ñoom maam jaara mu ngel jon gaa yëpp nuyu nañ leen di nuyu ñëpp déjà ñu ñaal ñëpp jàmm di nuyu fans club Leewtoo TV bi ñoom Cissé ca Brésil Faat Jara ku bombar ji maa ngi koy bëgg bu baax a baax fans club Babacar tamit 100 pour cent bi samay soppe lañ sax ndax du ma wax fans club ñooñu ay soppe lañ man ak ñoom yaa ngi dégg di wax mention spéciale Cédric Marceline Ndour yàlla fa saaxoon maa ngi koy nuyu jiga ñoom Pablo grand lay Baye Sall ca Paris ñoom ñëpp nuyu naa leen di ñaanal ñëpp jàmm di waxaat encore une fois rek que ni yàlla na Sénégal am jàmm waaye yàlla na àddina bi am jàmm yaa ngi dégg di wax ne que lépp lu ñu fi wax nit jàpp ne dañ caa juum ah nañu borom jéggal lu fi jub suñu borom la ñun nag suñu credo ci làmb la ñuy commencé ci la ñuy yem parce que làmb 100 pour cent la ñuy def yaa ngi dégg di balu ñëpp àq di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que réew mi yàlla na fi jàmm sax yàgg fi suñu kilifaay diine yi yàlla leen fi yàlla bàyyi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin Babacar ñu ngi tàggatoo bu subaak jàmm incha allah